Euh, euh, madame Faye madame Sall Mariam Faye yombul Wa, yombul Wa taxaway ndax ñaari jigen rek ño nek ci aduna, waaw Qui sey yem ci sey ba ak mission dougal ci Ni mission dugal ci sëy sañu nous ñaxtu sañu que mer waaw lu dikk ñu ko waaye bu la kese kese ci kër bu la nga mer waaw na ku sañu la mer mukk responsabilité tànn tànn tànn jigéen ji ngay tànn lu am solo la sunu jur wu jigéen daf ñu daan wax ni doom bu ngeen dee wuti soxna defu buñ leen wax ni seen soxna am na ko bu mu tax ngeen wàññeeku amul defu bu nu mënul corriger mu ne waaye buñ leen ne dafa gàtt xel nag bàyyi leen ndax borom xel mu gàtt mook borom ba ba mel mu ni xel mu gàtt kenn du ko sufurle waaw mook borom ba ba ñuy dugg ci ba mel ma gis ñaari wax moom boobu soxna si moo ko wax bi ci des Serigne Abdul Ahad moo ko wax fekk seen cheikh yónni ma fa ma dem yendoog moom moo xam ne ma sama am Serigne Touba Euh, dafa daan wax ni lu ne gis na ko ci àdduna waaye mësula gis fu nuy feccale bopp bu feesul mu ni bopp bu feesul mook borom ba bàmmeel waaye xel mu gàttit mook borom ba bàmmeel euh, sagesse sagesse pure la waaw mag ñi lu ñu la wax seen baati wolof yooyu boo ci jël rekk mën nga ci ràbb àdduna